dañuy sant yàlla d'abord bu ñu mayee ñu ñëw fekk ci sëriñ bi ci bis bi di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te mu ànd ak mu yàgg ko fi fekk ndax xam nañu cëram ak taxawaayam ci diine ji ak ci réew mi euh, wax nga dëgg bi ñuy laata egg si jafe na lool diggante yoon wi jógee géewul jëm si fii ci caar yi gis nañu ni mu mettee te population yi ñu dajal yëpp euh, wax nañu ne bokk na ci li nga xam ni mooy li leen gën a yitteel li leen gën a ñor te yàgg nañu ko jàmbat ca président Abdou Diouf ba nëga ni mu tëw a sotti te xam nañu ne luy gàllankoor développement gox bi la luy gàllankoor développement économique surtout que fii yàlla def na suuf si barkeel activité yu bari économique mën fee am donc désenclavement bi war naa bokk ci ci finance bi également dégg nañu ministre des finances dafa nekk jafe-jafe am na yàgg laa dégg na ci ba noo ci gis te pourtant li ñu ci wax xam nga ñun dogal na ca njalbeen ga la waxoon ne fii ñu jëmee réew mi moom baaxul du yoon et vraiment li ñu gën a constaté mooy ñàkk a mën a yore réew mi ci yore nu sell ko nguur fi nekk yore donc buñ demee ba ñoom ci seen bopp ñu nangu loolu te population yi ci seen bopp yëg loolu li ci des rek mooy incha allah ci li ñu dëgmal population yi jël seen responsabilité changement yi war a am mu ko ci réew mi